inni xalaftu bi rabbil bayti wa tuuri inni xalaftu bi rabbil bayti wa tuuri ma in raaytu fatan fiinaka mansoore najlil imaamil همام الحاج مالكنا شيخ المشايخ نحرير بن نحرير من منصور inni xalaftu bi rabbil bayti wa maa ngi wat ci yàlla te Alaaji Abdu xam na li nekk ci wat sama man Xaj Ibrahima Saaxo dafa daan wax ne wat su dee dëgg nit ku tàmm waat su dee dëgg dina gàttal fan su dee ay fen dee moo la tere dem safara allahu akbar xoolal nit ñi ñi ñemee waat fi mu ne mu ne su dee dëgg dina waral gàtt fan su dee ay fen dee moo la tere dem safara alaaji abdul aziz si dabbaa xam na li nekk ci waat nee na nag man maa ngi waat ñu ne ko looy waat mu ne ma indi raaytu fatan baatu fataa ñëwaat na Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dégg nga fële fataa kii ñëwaat na ne Fatam te Mam Mansour daan na wax ne moom ci boppam innal fata man sama naxwal ula wa wax na ko ci ay mbindam xëy na buñ ci ñëwee daana ko indi nee na suñu wax nit alfata mooy ki nga xam ne bëtam ca kaw asamaan la ko xool te bala moo am jàmm dana fa yegg allahu akbar nee na kooku mooy fata de mm-hmm. ñi ko tagg ñëpp nag baatu fata lañu ñu inni xalaftu bi rabbil bayti wa tuuri ma in raaytu fatan gisuma as cem fii naa ci ñun Serigne Habib léeg-léeg ma wax gaa yi ne leen fii naaw alaaji Abdou du fii naaw alaaji Mansour gay mii de Mansour Gaye bu ñu toogee jotaay maa ngi nuyu Serigne Hamzata Samb ku bëgg alaaji Mansour la dafa mës seetaan sama benn vidéo xaaj Habib woo ma ndeysaan defal ma teraanga yu bari grand bu Getzner boo xam ne bu seer boole ci ay parfum dàll xaalis bu bari ngir jëmee Alaaji Mansour dama ne fii naaw Alaaji Mansour Alaaji Abdou ak suñu fii naa du benn de Mansour Gueye mu toog ci ay moroomam naan fii naa ci ñun <laughs> loolu yomb na waay waaye Alaaji Abdou mooy kan ki wax ne gisuma ci ñun ku ku ku seen pëndu Alaaji Mansour maa in raaytu fii naa sëñ sëñ Habib fii Abdu du suñu de alaaji Abdu xam nga fii naaw mooy ban déglu la mu waxoon yàlla dafa waxoon ne ay waji qawimo bi joodikataa wasluku bi masalik al ulamai ay waji qawimo بجودك طه واسلكوا بمسالك الأتقياء xoolal yàlla maa ngi lay ñaan samay dëng-dëng nanga ma ko jubbantil soo ca noppee na ma sóob man alaaji Abdul Aziz Si Dabaax ma bokk ci kuréel gi nga xam ni ñëpp dañuy reconnaître ne ay borom xam-xam lañ ñëpp dañuy reconnaître ne ñu ragal yàlla lañ ñëpp dañuy reconnaître ne ci ñu jabbaa uy lañ bokk ñëpp dañuy reconnaître ne ci nuqaba uy lañ bokk alaaji abdu nee na ñaan naa yàlla lii lépp te xam nga ne ñaanuk alaaji abdu yàlla du ko delloo nangul na ko lépp nee na ñun ñii ñëpp nag buñ dajee nuqaba uy nujaba uy ulama uy xutbu yi xawsu yi maa in raaytu fatan fii naaka Mansour yi gisuñu ci ku mel ne alaaji <laughs> ah? loolu dafa yéeme ah wallahi wal quraanil aziim yàlla na nu ko yàlla fayal Euh, dafa mës a gane ji Chérif Bachir Chérif Bachir woo mag ñëpp ne leen préparé leen dañoo namoon Seydi El Hadj Malick te bu ñu gisee jëmmu Cheikh El Hadj Mansour ñun ñëpp xam nañ ne gis nañ El Hadj Malick mag ñëpp dajaloo ku ci nekk sañse la nga gën a bëgg la nga gën a cherle ñëpp toog di di di xaar moom Cheikh El Hadj Mouhamadul Cheikh bi moom moom Cheikh Alhaji Mouhamadou Mansour ne tël bi mu ne tëll mbooloo mi ñëpp dañoo jug taxaw jaxasoo ku nekk xamatul fan lay jaar Ousmane Mballo Fodé muñ yëf ya munu koo muñ mu xaaju ne hël baana badurun kasaahu bilbaha nuurun am barqu saariyatin yaxshaahu day jooru hël baana badurun kasaahu bilbaha nuuru waaw ndax ñun ki ñëw ci ñun weer la